neena sa bo xeye suba cioy da ngay wax bismillahir rahmanir rahim fukki yon la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim fukki yon lolou yom na lool waaye limi yom yom dama wax la wax ne boko jangul do ko man kon jar na bàyyi sa liggéey ko ngay njëriñ li nga xam seigne touba wax na ci rahim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim Sëriñ Tuubaa nee na boko xeye suba cioy fukki yon da ngay melne bis bi nga juddo ci lolé itam boo koy gëstu boo léegi man nga dem ci téeréem bu tédd boba di masalikul jinan fale ko señ tuba bind bokk na ci njëriñal bi rahmaani rahiim ba ko ñaareel sëñ Tuubaa nee na na bu jant bi fenk bisub dimanche bisub dimanche bu jant bi fenk da ngay jang ñetti bi bismillaahi rahmaani rahiim bo na daal daari ci tek salatu wala nak bi sëñ señ tuba na boko défé defee borom dalay jox wërsëgu lay